saraax la ñuy def ci xew xew làmb tey fekk fa sëll bu ndaw Ama Baldé ma journal sunu làmb xam le ne am na mission bu rëy bu koy xaar Ama Baldé mission bi koy xaar mooy kay jóge Parcelles Assainies dugg Pikine fekk fa couronne ba ne ko coppet yóbbu ko ca Parcelles Assainies mission ba mooy Ama Baldé topp ko oot ko ba jàpp ko nangu couronne ba delloo si ko Pikine moom Ama Baldé ñaari mbir moo koy xaar ci bile combat benn ba mooy Modou Lo ma sonal waa Pikine dugg fa fekk fa seen mag Eumeu Sène daan ko ñaari yoon faaw mu jëflanteeg Modou Lo amut lenn lu mu def lu dul ñëw ne ko coppet yóbbu ko parcelle boobee kuroon waa Pikine ngeen mën nañ Ama ngir mu nangu ko ca Modou loolee moo waral journal ba ne ngir mu doon Pikine waa bu njëkk bi daan Modou Lo faaw mu am secret mbooleem kàngami làmb ya nekk Pikine fas yéene na noo booloo doon benn jàppale Ama Baldé muy Abdou Bakhoum Pape Diop Boston Cheikh Ndoy ak Bourkhane Wade ñoom ñépp fas yéene nañoo jàppale Ama Baldé ngir mu jëli couronne ba li ni ko Ama bëggee faaw mu dolli cere yokku ñeex moom Ama Baldé day taseeg ne ni ba mu dalee taseeg waa Pikine ba noonee Ama Baldé di jëlalee Eumeu Sène revanche noonee la Modou Lo di jëlalee Papa Sow bile combat kañ lay doon moo jaaxal jaam ñi bile combat ka ko taxawal di Luc Nicolaï kañ lay génn prison loolu la ax làmb bëgg a dégg gannaaw ba ñu ko jàppee le 19 décembre 2019 mu ngi doog téeméeri fan ca kaso ba jàpp googee ñu ko jàpp nag moo waral combat ba nekk ca blocage total bari nañu jàpp ne libération Luc Nicolaï képp moo mën a tax bile combat am nekkatul arbitre ya ko waroon a arbitre ñu ngi ci seen grève ba waa CNG daane jët li moo jël ne leen xaw koy aj xaw aju leen ko waaye man mere naa leen kontaanuma ci li ngeen def sama victoire bi ngeen ma xañ ci kanamu jam ceeri metti na ma bu fa metti yem CQRP ba ca CNG seen décision ba ànduma ca tey ànduma ca ëllëg atte bii ñu atte nag atte parparloo képp la ni ma daanee jam ceeri noonee la Bombardier daane Balla Gaye 2 ñu jox ko victoire noonee la de guerre daane Boy Niang 2 ñu jox ko victoire noonee laa daane jam ceeri gépp teg ci seeni bët ba noppi damay wëlbatiku merewaat Moustapha Gueye ndax moom it ton na ma yow combat bu jeex ma déposé recours recours ba génnagul nga jox ma defet ba invité sama adversaire di wax ak moom loolee Tafa Gueye def du dëgg du yoon tegu ko fenn moom dama ko nawoon jox ko cër waaye nangu naa lépp ba mu jeex tàkk muy Moustapha Gueye di CNG ñoom ñépp laa ci bokk yemale bi la victoire sama victoire la te boole naa ko ci sama palmarès li weesu sama ginnaaw fàtte naa ko sama kanam laay dëgmal moo doon tàkk ñëw bëgg naa ñaari mbër yi laa soxla ñoom lay wër Jordan bokkal écurie ne ko man de bu ma mënoon a gis combat jël diggante 2014 ba 2020 ma daanee Forza bu Fass ba léegi nii mënatuma am victoire mënatuma am combat boobee ba léegi ñaari défaite laa fi am ak 5 balance combat moom guddi bu ma ko gisoon sax du ko gëmee Cobra 2 ne ko kay man mii sax bu ma ko gisee du ko gëmee man ba ma góor a sokk daanee en 2017 ba léegi mënagumaa jóge fii ma nekk te pourtant palmarès bu rafet laa def kenn werante wu ko a sokk daanee en 2017 a fës